dal leen ak jaamu ñu ñëwaat ak yéen ci mbiri Moustapha Cissé Lo ginnaaw bi mu fi yëkkatee ay kàddu yu doy waar yu ñàkk tegin yëkkati ko teg ko ci kaw Yakham Mbaye ak Farba Ngom ak ñenn ci responsable politique bu APR Moustapha Cissé Lo dàq nañ ko ca Alliance pour la République xibaar boobe ña ko xamle di commission de discipline bu parti bi di APR boob boobule commission nag bokk na ca ña ko jiite di monsieur Abdoulaye Badji monsieur Omar Gueye monsieur Abdou Mbaw madame Awa Gueye Gueye monsieur Abdoulaye Daouda Diallo monsieur Abdourahmane Ndiaye ak monsieur Benoît Sambou ñoom membre commission bi la ñoo statué ginnaaw bi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall sàkku na ci ñu dal di sanctionné ki nga xamante ni moo di Moustapha Cissé Lo ginnaaw révélation yi nga xamante ni génn na def ko ñoom nag ñu ngi sukkandiku ci article yi di 3 4 14 ak 19 bi nga xamante ni mooy statué ci parti Alliance pour la République te yooyee article nag ñu sukkandiku moo tax ñu dàq ki nga xamante ni moo di Moustapha Cissé Lo bokk ci membre fondateur yi di APR ndax dañoo jàpp ni saaga yu ñaaw yi mu yëkkati teg ko ci ñenn ci membre APR yooyee dafa jege dayoo ba daal di choqué ñu bëri ci réewum Sénégal ginnaaw dàq biñ ko dàq nag ci parti bi ñi di commission discipline bi ñoom it ñu ngi artu bépp membre boo xamante ni mel nga comme Moustapha maanaam di yëkkati ay wax yu ñaaw di ko teg ci membre APR yi wala nga di ko teg ci ñenn ci sénégalais yi dinañ la def comme ni ñu def kii di Moustapha Cissé waaye nag mu mel ni namu ca yabu ca ku la ca ba max nga jël ndax laata décision bi di wadd rek kii di Moustapha Cissé Lo moom démb ci dimanche ji jot na démissionné ci post vice président assemblée nationale ak bépp instance de décision bu nekkoon ci APR donc mu mel ni jamono ji Moustapha Cissé Lo déclaré na guerre partem bi nga xamante ni daf ko bëggoon def ko ci xalam di parti njiitu réew mi di Macky Sall di Alliance pour la République bis naka tey démissionné naa dootuma premier vice président de l' assemblée nañ ma considéré comme Moustapha Cissé Lo membre de l'APR xaritu Macky Sall député à l' nationale boo xam ne député rek la bëgg a doon. danaa ko may nag moom Macky Sall ba euh, euh, situation bi mu nekk mu jeex ndax bu jeexee te tontuwuma assemblée danaa ko jaxase jële fa Moustapha Niass ci nii wala naa. Euh, sa lettre de démission da nga ko déposé gum wala da nga. bind naa ko tey la dimanche tey laa ko bind décision bi. léegi bu weesoo loolu après yow euh, lan mooy doon euh, suite bi lan ngay def après. mais ma nekk militant simple bu APR comme Farba Senghor Farba Ngom léegi pare naa pour jëm kaso wala ñu ma.